warum jur ga ñoo war a fay wala chey di dara nag alihim di leen war fi fasaadi nahaari ci yàqu bëccëg ga bu dee rurum bëccëg nag moom moo aajo woo teqale su fekkee ne fañ doon sàmmi sori woon tool yi te jur ga xamuñu leen ci mën a ruur kon yàlla dogal loolu rek ñu rëcc ñëw yàq toolu jàmbur loolu kon moom jàmbur baay muñu rek xam ne kon yàlla dogal loola waaye bu fekkoon ne dañ doon sàmmi fu jege tool jàmbur yi mbaa jur ga xam ne ni moom ay ruurkat lañu ñoom jur ga su boobaa nag moom la mu doon doon ruurum bëccëg du tee boroom jur ga dañuy fay du tee boroom jur ga war a fay ba tey nee nañu kat bu fekkee ne jur ga ab sàmm nga ca woon sàmm ba faw moo war a fay la jur ga ruur moo xam nag fa mu doon sàmme daa sori tool ya am dafa jege tool ya ñooye moom moom daal sàmm bi moom faaw rek moo war a fay waman wajada koo xam ne fekk na silxataxoo marsandiisam fi tafrisi ci sisir fa imma xaasasa kon benn mu sompoo wa illaa ndéem bëgguta sompoo axasa mu jël silxataxoo marsandiisam ma in kaanat dem nekkoon na ton rafu dee fi ko xam mi xëy nihaa ci jëmmam nee na boo jaayoon nit dara marchandise mbaa leneen daal gannaaw ba nag mu bari bor ba ñu taxawu ko di seddu alalam yow nag la nga ko jaayoon jot li woon a fay waaye jëmm jàng ni léegi foofa dara sikku ca kon bu la neexee nee na nga jekki-jekki jëlaat sa yëf rek bañ a bokk ci xëccoo baag séddoo ba la neexee itam nag bu fekkee loolu dafa lambu boo jota boo ko jëlaatee itam du neex a jaay ci yow nga bàyyi ko ci rek nga ànd ak ñëpp sompoo boo jaayee nit lu mel ni marchandise mbaa leneen gannaaw bu nga fekk ñu koy sisir te fekk moom fayu la woon la neexee nga jékki-jékki jël la nga ko jaayoon rek jënd yow la neexee na nga bàyyi ko ca ñu seet lépp ni mu toll rek sompaate ko borom bor yi kenn ku nekk am la nga mën a am waxuma moom nag fil mawti ca faatug waaja uswatul xuramaa yi mooy royteefu way fayu ña bor li wax ñi kat mooy dangaa fekk ñu koy sisir bor yee bari rek waaye moom ngay dund ngaa fekk ñu koy sisir rek boobu ngay am sañ-sañu la nga ko jaayoon te fayu la nga jékki-jékki fab sa yëf dem waaye bu fekkoon ne waaja daa faatu moom yaag borom bor ya fa nekk yéen a ci yemoo rek doo mën ne damay daal jël li ma ko joxoon te fayu ma man dem déedéet yaag ñëpp yéen a yemoo rek da ngeen di somponte rek ku nekk am lu tolloog la nga mën a am wabbaaminu aji gàddu ja xaarimun aji fay la gàddu mooy gaarante waaye moom day ñetti xaaj gàddu alal ak gàddu andi jëmm ji ak gàddu wëri ko fu mu nekk nga yëgal ko ki ko lebaloon bi mu wax ni nag mooy gàddu alal su fekkee danga ko ne lebal ko maa gàddu li nga koy lebal kon moom su fekkee ne kooku ma nga fa te mën naa fay kenn du la fayloo waaye bu fekkee ne amul lu mu fayee mbaa nekku fa yow mi gàddu woon alal ja kon yaay fay gàddu jëmm nag mooy nga wax ko ne ko lebal ko bis bu waree fay danaa fexe ba indi jëmmam mu taxaw fi sa kanam su ma ko indee nag man saa jaan wàcc gàddu wëri nag seeti nag mooy nga ne ko lebal ko man day mën naa bu waxtu fay wa jotee danaa ko wër kem sama kàttan fu nekk mu ñu wax la ne la ma nga ca béréb sàngam yow nag nga dem fekki ko foofa kon ñetti xeeti gàddu yooyu ñoo am waxamil wa ci aji gàddu jëmm in lam yi ati dem andiwut bi ci jëmm ja in lam yi ati dem dikkewut bi ci jëmm ja xarima mu fay xataa yastarita ba te mu sartee an laa yoxarama mu bañ a fay gàddu jëmm mooy nga wax ko ne ko lebal ko àggee bi ñu àggee ci mu war laa fay moom fu mat nekk danaa ko seet andil la ko danaa ko seet kem saa kàttan daal andil la jëmm ji mu taxaw kooku ne nee na buñ ci àggee te andiwoo jëmm ji faaw nga war a fay bor ba lu may dangaa leeraloon ne man kat buñ ci àggee ma wëroo jëmm ji mënu ma koo andi itam du ma ci fayante su boobaa kon doo ci fayante wa man koo xam ne wax yi la soppeef na ko maanaam wëlbateef na ko bi lay nin ci bor faradiyete mu gërëm falaaru joxa deetu dellu loxo di ko ñeel xalal awali ci aji jëkk ja waaye afla sa ak doonte ñàkkoon na wala doonte sisiri woon na donte fàll soon na xaasa kine wala ñu tuddee alxawaalatu ci téere fiq yi alxawaalatu mooy nga ñëw di ma fayu bor ma ne la diw de Ahmadou Diop amel na ma bor ma itam boo nangoo ma booy laag moom boo demee moom mu fay la waaw loolu mooy alxawaalatu loolu yoon nangu na ko kon boo dikkee di ma fayu bor buñ juboo fekk ma it am na ku ma amel bor mën naa laa yebal ci kooku rek moom boo demee kooku fay la neen nag bu fekkee ne nangu nga waa yebal la ci kooka nga dem fekk kooku ñàkk amul lum la faye it da nga koy topp rek te bàyyi ma xam ne man degam bool naa laag moom te juboo nañ ci rek man toppatoo ba léegi kooku ngay topp illaa an yaxurrahu dara bu da koo wor minhu ci moom lu may dama laa nax nag ci ma nee la diw di amal na ma bor te ma laa yebal ci moom mu fay la boobu fekk na ma xam ne diw moom amul lu mu faye ndax mënoon na fay fay ma maa la wax loolu rek ngir nax la waaye xam naa ne diw ma lay wax ma amal na ma bor bi sa waaye mënta fay moom kon nag bu loolu amee moom boo demee ca moom fayulee mën ngaa ñëwaat ci man waaye bu fekkee naxuma la defuma ci dara nag bu nga xasee juboo ci nga dem ci moom rek féete nga ak moom léegi wa innamal xawaalatu naka soppeega xalaa asli day nin day nekk ci cosaanal bor wa illaa bu fekkee bor amu fa fa hiya kon moom xamaalatun ak gàddu rek la nee na soo ma dee fayu si ma ne la waaw te ma laa yebal ci diw mu fay la ndax amel na ma su fekkee daa ko wax rek waaye kooku amelu ma dara kon dañuy seet boo demee diw moom yi baax nangu maa fayal rek féeteeg man loolu baax na waaye ndegam amelu ma dara moom bu la ne amelu ma ko dara mën ngaa ñëwaat ci man balaa jëflante gaa wér ci anam gi te fekk ma la yebal amel ma bor bu fekkee kooku amelu ma dara ma wax ba yebal la ci moom rek su kooku baaxee baaxu fayal ma te féeteeg man loolu baax na waaye bu gàntoo ne amelu ma ko dara itam nga sañu ñëwaat ci man wala yaxramu du fay alxamilu aji gàddu ja illa fi xuddumil xarimi dara ci ñàkkuk aji leb ja aw xaybatihi wala fàddoo mooy ab tukkeem daa wax ne yow nag boo gàddoo nit te kookaa nga fa te mën naa fay yow kenn du la fay loo waaye nag boo xasee gàddu nit te moom mu ñàkk mënta fay yow mi ko gàddu woon kon yaa war a fay bu fekkee dafa nekkul ba tey it noonu kon yow yaa war a fay waaye bu fa nekkee ba nag mën a fay daal moom kenn la fay loo waaye xillu dana ay mooy dana jot bi mawtil matloo bi ci deexub kañu sàkku mooy ci deexub kañu lebal aw taflisi yi wala sisiram kullu day nit bépp bor xale yi boobu waroon na ko képp koo xam yore na bori jàmbur mu jëmoon dele kon bu xasee faatu ku ma amee loon rek say boo ñëw ñu fay la ndax da nga xas na faatu moom deetul xaar délai booba ba tey bu ñu ko dee si nga xam daa bari bor ba ñu taxaw bëgg a fayoo alalam ku ma amee loon bor te délai ba ñëwutit bul xaar délai ba daal lu ñëw rek ànd ak borom bor yi ñu seet loo mën a am nga am ko takk-takk boobu yomb naa xam képp koo xam ne daal ameel na ay jaambur bor bu jëm délai bu ko see faatu rek say boo jàmbur yooyu ñëw ñu fay leen ndax ni mu xas na faatu jot xaarati délai booba ñu ko dee sisir ba tey noonu say boo ñëw ñu fay leen jël ñu xaar délai booba wala yaxil waaye nag du ay mooy du jot maa la nga xam ne kaana nekkoon na loxo di ko ñeel xalaa xëy yi war ku dul moom loolu lu mat a xàmmee tarañee ko la daa wax ne moom moomee faatu nag baa ñu koy sisir ku ko amee loon tam jëm dele du ñu la sañ a forcé ne la ñëwal daal di fay si te fekk dele ba jotul képp koo xam ne amee loon nga ko moom moo may faatu mbaa ñu koy sisir rek tam jëmoon dele da ngay xaar ba dele ba jot nga door a ñëw fay si waaye kenn suñu laa wax ni la ayca dalal du ñëw fay li nga ko amee loon ndax moom faatu nañ koy miraas mbaa daa bari bor ba ñu ngi koy sisir déedéet yow toppal rek. délai ba nga ko war a fay si bu ñëwee rek nga fexe ba fay si wala tubaaxu deful jaay raqabatul mazoni baatu jaabuñ digal yaxantu fii maa ci la nga xam ne alayhi war na ko wala yu tabaxu te defu topp bi ci moom sayyiduhu sangam ba jamonoy jaam amee bu sang bi digal yëpp jaamam ne ko say boo jaay ko jënd mooy digal na ko kon yaxantu bu fekkee ne jaam ba gàddu na ci ay bor kam amel bor ba du wax ne daay jaay jaam bi fayoo ko jaam bi alal rek daa koy jaay fayoo ko déedéet du wax ne itam sang bee may fay du dem ca sang ba naa ko sa jaam bi kat amel na ma alal ci bi muy yaxantu kon yaa may fay yow sang bi déedéet lu may nag sang ba moo waxal ne leen sama jaam bi digal naa ko yaxantu saye boo ngeen jëflenteeg moom lu ngeen jëflenteeg moom maa ko gàddu su boobaa nag kon ba ci jaam ba gàddooy bor moom borom bor ya mën a topp sang ba ndax loolu moo ko waxan waaye bu loolu de moom duñ mën a jaay jaam ba di fayoo duñ mën a topp sang ba it ne ko faaw rek nga fay nu way yux ba su def na tëj al midiyaanu ab lebaa kon li yus tabra ngir bu deefi ko laablu koo xam daa amay bor dañ gis ne boo dee xool ni mel ci kaw daa mel ne mën naa fay daa fayut rek waaye ci kaw daa mel ne mën naa fay kon yoon da koy tëj gëstu ko ba xam daa mën a fay te fayut wala daa am rek sutura te mënta fay suñ ko xasee topp ba xam mënta fay daa koy bàyyi fa saa saa waaye nag ndegam moom umbale nañ mbiram ndax daa nuru ko mën a fay te fayut nag kon nañ ko tëj ba xam lu muy def wala xam sa déet tëj kaso xalaa moo dimin ci aji ñàkk koo xam ne amee nay bor nag waaye moom daa mënta fay kenn du ko tëj kaso dañ koy bàyyi rek bu wuti te kum joxoon dele nel dinaa la fay ci waxtu sàngam it da nga mënta fay rek yoon mooy toppal dele ba ndax ku mënta fay moom faaw ñu muñal ko rek ba mën a fay ndax lu mu amul mënu koo fay wamaa loo xam ne in xasama nangu naa séddaloo bilaa dararin ci lutul lor xusima kon séddaleef ko mi naq xin ci kër waxaqaalin aku lew nee na ñaar mbaa ñett buñ bokkee loo xam ne manees na koo séddoo te du yàqu kenn du ci am ngaañ ni ki muy suuf mbaa ay tool mbaa lu ko nuru kon bu leen neexee ñu séddoo ko ku ne jël wàllam taxul nag yoon forcé leen ne leen faaw ngeen séddoo déedéet bu leen neexee ñu bokk ko di jariñoo rek noona waaye day wane rek ne su ñaar bokkee mbaa ñett loo xam ne daal buñ ko séddoo du wàññi dara bu leen neexee séddoo du tee nag bu leen neexee itam ñu bàyyi ko noonu di ko jariñoo rek te bañ koo séddoo xamaa loo xam ne lameen xasim nangu wut a séddalikoo bi xayri dara diñ ci dul lor fa man daxaa ku woote ilal bay xi jëm ci jaay ga uj bi kon forceef xale ci moom man ka nga xam ne abaahu bañ na jaay ga bu fekkee ñaar mbaa ñett dañoo bokk loo xam ne mëne su ko séddalee ndax buñ ko séddalee mu yàqu baa buñ ko xasee séddoo kenn du mën a jariñoo sa wàll lu mel noonu nag bu kenn ne nan ko jaay ku bëgg a bañ ñu forcé la ci jaay ga ne la doo sañ a bañ ndax danga moom yéen a ko bokk te mënu su ko séddoo ah kon bu kenn ne nañ ko jaay rek ñu fekk si ko daal koy jaay sédd la njëkk lu mel ni tey bu doon benn peeru daal rek nga xam ne bu ko ñaar bokkee itam bu kenn ku ne jëlee daal du ko tax a baax lu mel noonu lépp loo xam daal moom ñaar seq na ko ba ñett te mëneesu koo séddalee mbaa buñ ko séddoo kenn du jariñoo sa wàll buñ ko nangoo bàyyi di ko luyee di séddoo njariñ la loola baax na waaye nag bu kenn dogoo ci nañ ko jaay itam ñu fekk ci ko rek ci jaay ga wa xasmul kurxati séddaleeg taboy bant laa yàggoon du nekk illaa fii sin bin dara ci xeet waaxit mu di wenn teway bant nangu nañ ko waaye loolu nañ koy def ci wenn xeet rek maanaam wenn xeet képp la ñuy def teway bant waaye mënees ta bool lu mat ñaari xeet yu bokkut mbaa ñett di ko def teway bant wala yu addi tey du jox ahadu shurakaay kenn ci way bokkaale sama nan njëkk wa in kaana ndem nekk na fii zalika ci loole tara joxun ak deltoonte la may jus kon du dagan alxasmu séddale ga illaa bi taraadin dara ci gërëmante daa wax ne buñ dee tegoy bant moom day nekk wenn xeet te it biñ teggee ku ne rek dem waaye buñ nee buñ ko tegee bant ba noppi ku jël sàmbee da nga jox sa morom mais nangam ci xaalis mbaa ci wurus mbaa ci leneen ah su boobaa day mel ne kon la nga waxal ne sit li tegoy bant wenn xeet lay doon soppiku na ñaari xeet ndax ndegam ku tegg sàmbee da ngay joxe leneen ni ki ñaari tissu la benn bi war a jar ñaari junni benn bi war a jar benn junni buñ nee dañ koy tegoy bant nag waaye ku jël tiisi bi nga xam ne daa war a jar ñaari junni da ngay jox sa morom mais juróomi téeméer loolu bu ñu ko defee mu yàqu ndax day mel ne kon dañuy séddale tiisi ak xaalis ndax loolee koo koy joxe bu juróomi téeméer waaw dañuy jàpp ne daa bokk ca tegoy bant ya te da nga ne woon tegoy bant moom wenn xeet dong dong lañ koy def kon nag fekkee dugal nañ ca ne ku teggi saam bi faaw nga jox sa morom nangam su boobaa day mel ne kon ñu ngay séddale lu ëpp wenn xeet daal di koy aaye lu may nag ñu séddale ko ci kaw rek ak déggoo kenn ka ne moroom ma man day nangu naa yaar yi nu siq nga tegg bii te jox ma juróomi téeméer mbaa man ma tegg ko te jox la juróomi téeméer xam lu ci gënal rek fekk naa la ci loolu nga xam ne kon ñoom ñaar seen xol da caa sedd kon seddoo juboo rek la waaye du te way bant loolu moom baax na fekkeen daal damañ ko séddoo séddoo juboo nañ ci ñoom ñaar ku ci fab bee rek jox sa morom nangam rek te bañ ko tegoy bant loolu moom baax na nga seetlu ne lee mu wax ne wala yu addi ahadu shuraka i samanan kenn ci way bokkaale ña du joxe am njëg ak lee mu ca teg ne wa in kaana fi zalika tarajuhun nee nañu benn dong la baat yëpp ñoo bokk menn ma xanaa mooy miin la jox léegi rek te itam nga seetlu ne dañ koy tudde séddale tegoo ay bant ndax mag ñi li ci ëpp dañ daan wut ay bant képp ku ca bokk rek joxe ab bant ñu woo ab jaambur mu teg bant ya kenn ku ne saam ba wala wàll wa sa bant tegu nga daal di teggi booba waaye teewul nag daanu ko def léegi ci bind ay kayit lem kayit wa daal di jox kenn mu teg ak neneen nuñ mën a xàmmee rek saam ya daal nay baax nga seetlu ne boo dee miraas nag léeg-léeg bu loola baree def koy saam tege ko ay bant moo lay gën a noppal ci di ko séddalee benn benn waaye nag bul fàtte ne lu bokk aw xeet rek ngay sañ a def loola mel ne mel ne mboolem xeeti sér ya nga xam ne dañ koy sol mën ngaa boole yépp def ko ay saam ñu tegoo ko ay bant ba tey itam bu dee xeetu dàll moom daal lépp lu doon wenn xeet ni mu ko waxee ci téere bi rek manis na ko séddoo séddaloob tegoo ay bant waaye nag buñ ca boole lu ca bokkut wa wasiyul wasi yi kañu dénkaati kañ dénkoon kal wasi mi ngi mel ne kañu dénkan rek xam nga yooyu jamono ak jirim duñ ko bàyyi rek noonu teewul ko yore toppatoo ay mbiram su fekkee ne bàyyam faatu na te bàyyiwu ko kenn koy toppatoo àttekat bu mooy seet ku ko war a mën a yore mu dénk ko ko léegi nag nee na buñ la dénkee jirim bu la neexee seet keneen koo doyloo nga dénkaat ko ko te nag kookee nga dénkaat la nga ca sañoon moom it dana ko ca sañ waaye nee loolu nag bu fekkee ne bàyyi baa dénkaanoon lay doon bàyyi moom kum dénk ab jërimam kooke dénkaat ko keneen kookee mu dénkaat sañ na ca la ca ka njëkk a dénk sañoon wali wasi ñel na ka ñu dénk añ yetta jëre mu yaxantu bi am waali yettaamaa ci àlali jërim ya wayu zawi ja te muy sëyiloo ima ahum seeni jébéer buñ la dénkee jirim nag alalam la ci gën mooy nga bañ ko faa teg rek noonu ñu ciy génne asaka at mu ne ndax day mujj kon daal di gaaw a jeex la gën mooy daal nga seet koo xam doyloo nga ko mu cay yaxantu mu yokk dara lu mu néew néew nga xam ne asaka dina mën di génn te du tee mu def aslëf waaye boo ko fi tegee rek noonu at mu ne asaka génn ci rek day mujj daal di bëgg a jeex ba tey sañ nga bu fekkee jamono yi jaam amee la jirim bi nga yor bu amee jaam yu jigéen te jaam yu jigéen yi may leen jëkkër ñu sëy moo gën téye leen di leen dundal kon ba tey baax na nga leen wutal ay jëkkër ñu sëy wa man aw saaku dénkaane ila xayri mamonin jëm ci kurul ku ñu wóolu fa indaxoo naka kookee yonsalu def na ko folli day aajoo ki ñuy dénk jirim bi muy ku doy ci wet yépp waaye bu dee ku manqué rek ñu dindi ko joxaat ko keneen koo xam ne moom dana mën a taxaw jirim ba wa yub daw def na jëkke bil kafani ci càngaay la summa dayni topp bor tumal wasiyati topp ab dénkaane tumal miraasi topp ab dono bu fi nit bàyyi ko daal lañu war a njëkk njëkk a def mooy lam bàyyi bu fekkee am na ci jëmm joo xam ne àqi jaambur aju na ja nañ taxaw temm ci topp ko àqi jaambur joojee mu génn ba set loolu moom moo war a jiitu ni ki bu fekkee am na lu mu tayle woon ci béréb wares naa seet loolee mu tayle woon ñu jot tayle ga ndax loolu jëmm la joo xam ne àqi jaambur aju na ja bu loola jàllee nag ñu seet la koy waajal ba jébbal ko boromam ki càngaay laag dat ko leen jaag biñ dee fay ca sang gaag ak biñ dee fay ci gas baag yooyu yooyu lañ cee teg bu loolu jeexee ñu seet ba xam ame woon nay borom déet fekk ame woon nay bor ñu taxaw temm ci fay bor yi su bor ya matee na ñu seet ndegam dénkaani woon ne su ma fi jógee saa alal nañ ma ci defal nangam say boo ñu def alal ja ñetti xaaj benn xaaj ba ca ñu koy génneel lam dénkaane woon ñi ne woon ñu defal ko ko ne ñaari xaaj moom ñay doon ñoo ko moom lam dénkaane bu ëppee benn xaaj bi rek ñay doon bu leen neexee gàntu bu leen neexee itam nag wéyal waaye jàppal ni daal moom am nga sañ-sañ boo fi jógee dañ ma defal nangam nangam nangam su boobaa nag bu ñu seetee saal def ko ñetti xaaj ñaari xaaj moom ñay doon ñoo ko moom benn xaaj bi ci lañuy génne seen dénkaan su fekkee seen dénkaan matut te ñay doon nangu wéyal la nga wax baax na su fekkee nag moom nangu ñu wéyal loola fa ceer ba yem rek fa sulus ba yem rek foofu la ñu yemale ndénkaane du tee nag sulus ba buñ ci joxee ndénkaan tam desit ñu boolewaat ko ci miraas bi waaw léegi nag buñ génnee ndénkaane kon miraas moo cee topp miraas nag mooy seet kenn ku nekk la yoon wax na ko ci am ci alal ja ñu seet nuñ ko génnee jox ko ko kon noonu lañ koy tegalee wa man xaasa ku làq daaran kër xalaa xaadirin ci aji teew xasara sinin fukki at tum sa bu dee fi askan kër ga ilayhi jëme ci moom wa saaxibuhaa te boroomam xaadirul aji teew la aalimun te aji yëg la laa yet dax yi du woote shay an dara falaa qiyaama kun déet taxawaay laxoo di ko ñaar bu nit nekkee ci kër di ca soppandiku soppandiku moo moom kër ga am ku nekkan ci wet ga di ko seetaan waxu ca dara bañ teg ci fukki at lépp rek kay ma nga woon ci kër ga moom di tojo ko tabaxaat def ko dindi ba suñoo dégg kii ci wet gi benn yoon mu wax ne maa moom kër gi mbaa saa yoon nekk na ca ñu am fukki at nag mu door a taxaw teem ci bëgg a wax ne kër gi diw mi nekkoon di tabax ak tojaat daal sama kër su boobaa di su ko déglu ka nekkoon ci kër ga fukki at ya di te daka tabaxaat di dafa ko dindi su kee ne maamu kër gi mu weddi ko ne ko déedéet sacre dañuy jàpp ne wax na dëgg moom mi ci nekkoon di ru fukki at yi rek moomam kër gi bañ a déglu kooku nga xam ne moo ci bëgg a taq wala xiyaasata déetut làq baynal aqaar yi bi diggante jege ñaale ya wal ashaari ak goro ya fii misli haadihi al muddati ci kem bi la diir su fekkoon ne nag ka cay tax day mbokkum ka ca nekkoon mbaa mu di goroom nag kon fukki at dong du tee bu ci waxee ñu déglu ko moom kay dana yàgg lool lool ni ki ëpp ñeent fukki at te lu yées loolu rek bu ci waxee ñu déglu ko topp ko ci yoon ba xam fu muy mujj ndax dégg mbokkam la moom loolu lépp mën na ko ko muñal te du tee boo demee ak moomeelam la wala yejoosu dagan iqraarul maridi saxaluk aji tawat liwaadi si ñal aji doonam bi day nin ci bor ku tawat tawati faatu du sañ a fekk koo xam ne war na koo doon mun a amel naa ko bor li ki mu ne sama soxna si amel naa ko bor mbaa sama doom ji amel naa ko bor mbaa sama yaay ji mbaa saa baay amel naa ko bor ndax day mel ne kon ku bëgg a dénkaaneen su ma fi jógee rek dañ ma ko joxal alal te xamul nu mu koy defee rek loolu moo tax duñ nangu ko dem ba tawat tawati faatu jekki di wax naa jiw mi amel naa ko bor sàngam te fekk jiw moomee war a doon aw bi xabdihi wala ci ak ngëbam ba tey su demee ba tawat tawati faatu du sañ a wax ne jiw mii day ameloon na ma bor waaye fay na ma ko ni ki sama doom ji ameloon na ma bor sàngam fay na ma ko mbaa sama yaay ji ameloon na ma bor sàngam fay na ma ko day mel ne da ko bëgg may bor ba te xam ne yoon nanguwul loolu rek mu seet nu mu ko defee loolu moo tax yooyu yaar diw mi amel naa ko ba diw mi la ma amoon fayal na ma ko te fekk kooku war koo doon duñ ko nangu lu may nag ñu jëflante woon ko mu am ay seere ñu bind ko muy lu wér su boobaa moom ñu sukkandikoo ci loola waaye waxi kese yooyu jamono rek moom dee su ko nangu wa man awsa ku dénkaane bi xajjin ci aj um dita kon wéyaleef ko ku wax ne su ma fi bàyyi ko nañu ma ajali ñu topp la mu wax daal di koy seetal ku ko ajali wal wasiyatu waaye dénkaane bi sadaxa ci saraxe ahab moo gën a sopp ilinaa jëm ci nun malik waaye nag dénkaane su ma fi bàyyi ko nañ ma saraxeel nangam moo gën su ma fi bàyyi ko nañ ma ajali ndax dañuy wax ne ca dëgg-dëgg tuyaabay ku dimbali nit mu ajali ko rek lay am waaye du am tuyaaba aj dëgg-dëgg kon nag moo tax kon lam nar a ajloo ji mu wax ñu saraxel ko ko ndax dogu nañ ci ne buñ ko saraxelee faaw mu jot ca moom aj gi nag moom dañ caa wuute ndax dana ci jëriñu wala du ci jëriñu wax ji gën a wóoru mooy du ca jëriñu dana am tuyaaba yi nag ku dimbali nit rek mu aji wa isa maata ndem faatu na ajirul xajji bàjjib aj xabla añ yesila ci njëkk muy àgg fa la xoo ñal na ko bi xisaabi maa ci regle la nga xam ne saara dox na ko waaye rudd dana delloo maa la nga xam ne baq ya des na nee na buñ jubóog nit ne ko kaay ajali diw ndax da koo dénkaane woon ñu jubóog moom ci fay ko nangam ba dem ba ci yoonoo nag far faatu kon dañuy seet lam jota dox fa mu toll woon ci yoon wa rek la ci jaadu ca li ñu waxante woon ak moom ñu fay ko lu toll noonu maanaam ñu fay lu toll ñu fay lu toll noonu ay mbokkam rek te ñamale foofu mbir ma wama loo xam ne xalaka alkoona bi yadihi ci loxoom fa huwa kon moom min hu tukkee na ci moom su fekkee dañoo jubóo nag moom ne ko noo bëgg nga ajal diw ñu fay la nangam nangam li daal moom moom lan man duñ ko weesu duñ ko wàññi bañ jubóo ca loola kon su demee ba ci biir mu ne alal ja ñu joxoon kat dafa réer mbaa dañ koo sàcc mbaa nangam moom moo koy gàddu nga wax ne ko yow daal juboo nañ ci yow fay la nga war a ajali diw te xel yow ba ajali ko rek waaye ñoom ñu la fay ñoom wàcc nañu yow illa an yi axusa ndari bu dafa jëloon almaala alal ja xalaa an yunfiqa ci kaw muy dundale xal balaax yi ci àgg ga fab damaa mi kon gàddu ga mi ne lësina tukkee na ci ñi nga xam ne waajayoohu yoolante woon nañoo moom maanaam jëfalante ci diw ajali diw dafa am ñaari anam dafa am lu ñuy wax ujratul damaan ak lu ñuy wax ujratul balaax bii nga wees léegi nag moo gën a wóor mooy jubóog moom rek ci fay ko nangam mu dem ajali kooka lu ci mën di sànku moom la sànkul bi mujj wax nag mooy ñu ne ko dañoo bëgg nga ajali diw ci kaw ñoo lay gàddul fere yi daañu seet ba jàpp ne nangam jekk na ci dem bi nangam jekk na ci dellusi bi nangam jaadu na ci la ngay fere jubóog moom nag ci noonu rek nga xam ne kon tëkkuñu ko ci nangam daal lañ lay fay te nga def aj gi dañoo jubóog moom rek ci seet lay yàlla ci dem gaag dellu si baag fere yooyu rek. kooku nag nee nañu bu alal ja sànkoo te fekk arma la gutoon say boom wàññiku ñu yemale mbir ma foofa te alal ja sànku kenn du ko wax ne ko fay ko su fekkee xas na tàmbali nag moom alal ja jeexit. saye bo rek bu wéy ca aj ga bu dee jël ci poosam mbaa muy leb def ca it baax na bu dikkee rek ñu fay ko ko ci kaw nag mu bañ a def lu jaadoodiku su defee lu jaadoodiku moom kenn du ko ko delloo waaye ruddu dana delloo maa la nga xam ne fadala des na in fadala ndem des na shay'un dara suñ ko joxee luñ jàpp ne jaadu na ci dem ak dikk ak fere yi far loolu ëpp kon lam ëpp da koy delloosi baabun li ab bunt la fil faraidi ci masalay miraas miraas nag yorante bi dénkaane woon na ko ne na ngeen ko jàng bu baax a baax te jàngaliwaat ko ndax xam-xam ci boppam dañu dem ba yàlla jëlee ko fi ko defee ay fitna ki jaaxle am ba ñaar juyoo ci masalam miraas te duñ te duñ gis ku leen ci mën a teqale dara وتهمنا ومما يدل على مسيد فضله قوله عليه الصلاة والسلام تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الاثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما باب من يفصل بينهما رواه البيهقي وغيره birum miraas nag ni mu nuroo lu jafee sori na ko moom jafewul noonu ndax dafa bariwut ay wuute yaari ngir yi sax ni ki boo dee jàng miraas ci ngirum malik ak ci mbirum shafii yi sax du tax ñu am daanaka ay wuute loolu nag moo tax ki koy jàng moom bu ci amee teqantal rek da koy daal di leer bu baax a baax am na rek ay benn sew sew yoo xam ne mat nay teelu waaye lu bokkut ak loolu rek amul genn jafe wala yarisu doon min rijaali ci góor ña illa xasharut ndari fukk day njëkk wàññi ñi doon ci góor teg ci ñi doon ci jigéen ñi doon ci góor dañuy fukk lañ waaye da ngay wax ne fukk lañ ñoo xam ne boo ko feccee muy fukk ak juróom al ibnu doom bu góor